Mm-hmm. mbokk yi ñu ngi leen di euh, nuyu di leen dalal jàmm ci euh, plateau euh, mi journée fii ci Walf TV tey ñi ngi am mbégte nag di dalal maître Massokhna Kane maître Massokhna Kane avocat la jiite itam kuréel bi di SOS consommateur di xeex ngir àq ak yelleefu way jëfandiku yi ma soxna ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pierre Edouard. Mm-hmm. di la ci invitation bi. Euh, di nuyu sa téléspectateurs yi. Mhm. Euh, di wax ni kontaan naa ci invitation bi. waaw ñu tamit bëgg nañ si trop parce que euh, wax dëgg yàlla seen liggéey bi rafetlu naa ko trop. Mhm. et itam euh, ñu ngi leen di déglu. Mhm. et j' espère que li ñu fi wax tey dana am njëriñ pour sénégalais voilà merci beaucoup si sa euh, ñëw si wuy si sunu euh, invitation actualité bi nag suba ci àjjuma ji ñeent fan ci weerum décembre la Sidi Lamine Niass di am ñaari at gannaaw ba mu génnee àdduna ñëpp xamoon nañu yow say relation ak moom deux ans après est ce que da nga gëm ni ba léegi que ni départu jógee génn àdduna Sidi Lamine Niass dafa nekk perte pour Sénégal. Euh, perte la pour Sénégal perte la pour njobootu Walfadjri mais perte la pour àddina bi yëpp parce que Sidi Lamine euh, dafa nekkoon nit ku spécial yéen li may xam nga nit ku spécial parce que dafa bari woon ay dimension maanaam euh, dafa nekkoon nit koo xam ne kii multidimensionnel la Sidi ndongo daara la si di sëriñ la si di journaliste la si di manager la si di contestataire la euh, si di intellectuel la woon bu mag dafa amoon culture religieuse culture islamique mais dafa amoon culture tout court parce que ñëpp la daan déglu dafa intéressé wu woon sincèrement ci lépp lu xew ci àddina bi Euh, nit ñëpp dafa intéressé woon ci nit di daf daan euh, di xeeñtu di découvrir ay nit di leen mettre en valeur. dafa amoon flair. waaw dafa amoon flair sensu. Mhm. détecter maanaam xeeñtu ba gis nit ku am potentiel mu pousse ko ba mu génne valeur am ba nit kooku génne valeur am mhm. donc yooyu yëpp ay dimension Sidi la woon. Euh, Sidi dafa nekkoon koo xam ne kii euh, ku bëgg réewam la woon bëgg réewam dëgg dëgg dëgg ba mu jaraloon ko lu ne jaraloon na ko sax sacrifice sacrifier boppam ñu xam nañ ci dara artu nañ ko ba tey jéem nañ ko tere ba <laughs> tey am na lu ma si fekkee voilà <laughs> donc euh, patriote la woon boo xam ne bii dafa bëggoon réewam d'abord dafa bëggoon àddina parce que mooy culture religieuse bi may wax mm-hmm. dafa bëggoon li yàlla sàkk bëgg àddina di bind di gëstu euh, di am yu koy dikkal yoo xam ni da koy exprimer di ci bind ay livres et tout donc Sidi dafa nekkoon nit ku spécial ku xam ni kii euh, yore héritage am dana jafe ci yéen mais gis nañ ni yéen a ngi ci dañ koy ñaanal yàlla xare ko àjjana ci àjjana yi gën a koy parce que Sidi vraiment euh, jaamu ne jaamu ne yàlla ci façon bu nekk ci forme bu nekk ci nit ñi ci rabu àll yi ci lépp voilà donc euh, ñu ngi koy ñaanal bu baax manqué nañu euh, deux ans après mais ku dugg fii Walfadjri mhm. di nga gis ni Sidi mi ngi fi ba tey mhm. parce que loo gis rek daf lay rappeler mhm. muy image yi muy ñi mel ni yow ñi nga xam ni yéen a àndoon démb euh, bu ñu leen gisee rek suñu xel dafay nekk ci Sidi fii ku fi dugg rek boo gisee image yi boo gisee décor bi loo gis rek da ngay xam ni kii école Sidi la ñun dañuy yàgg wax ni Sidi mhm. école journalisme la yore mhm. c'est-à-dire day former ñi jaar fi yëpp bare nañu yow xam nga leen ñi fi jaar ñëpp mhm. c'est des gens de valeur yoo xam ni ils se sont révélés wala Walfadjri révélé ñu nekk fi ba nekk ay maîtres ba ñëpp soxla leen ba ñuy génn créer seeni structure ñi nekk ci structure yu mag donc euh, ñu ngi leen di encourager ci mission bi ngeen yore mission bu jafe la mais gën nañ ni bu ci ñëpp jàppee te ñëpp war nañ ci jàpp euh, mission boobu dana continuer mission bi nga xam ne di moo ko commencé woon dana continuer parce que am na njëriñ ci askan waaw mais malgré qualité ak valeur yi ngay wax si Sidi Lamine yëpp euh, dañoo gis ni tamit euh, nit ku coow toppoon la li tubaab naan controversé c'était un personnage controversé loolu naka lañ ko mën a analyser. waaw xam nga personnage bu riche bu am valeur. Mm. foog mu bari ñu koy controversé koy mm. diingat mm. koy xeex. ñun dañ koy seet ci suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam di ko seet ci suñu euh, yeneen euh, saint yi mm-hmm. dégg nga euh, il faut nit ku am valeur day déranger souvent day déranger souvent parce que li ñuy wax saay-saay li ñuy wax satan mm-hmm. en fait dafay nekk ci forme yu bare mm-hmm. donc c'est normal que ñu mel ni Sidi bare ñu leen di dingat mais Sidi dafa nekkoon koo xam ne dafa amoon capacité dafa amoon mën-mënu défendre ay idéem défendre boppam de sorte que euh, kenn daaw ko song ba pare génne ci noonu wala nga nga am ci ndab donc loolu euh, yàgg na ko prouver euh, te loolu combativité la boo xam ne bi capacité la yoo xam ni yàlla moo koy may nit mu mën a résister ci coow lii nga xam ne moom la ko nit ñi coow mais encore une fois nit ku riche riche ci ay idée riche ci ay waxam riche ci parcours am riche ci alal ñi lay xeex ñi lay jéem a dingat foog ñu bare. Mhm. loolu la yàlla def. voilà maître Massokhna kan euh, initié nga benn rassemblement bu mag euh, bu war a am euh, samedi bi fii ci Ndakaaru boole si ay parents d'élèves ay jàngalekat ak ñu bokk ci société civile bi li ko waral nag mooy différent bi am ci diggante parents d'élèves yi ak yenn école privée yi nga xam ni dañoo bëgg fayloo nit ñi ñetti weeru période de crise bi nga xam ni xale yi jànguñu ko woon lan moo waral tey ngeen décider def rassemblement pour askan bi mën leen déglu waaw li tax ñu décidé parce que dañu gis ni état bi mm-hmm. narut a régler problème boobu parce que euh, ba ñu déggee ministre de l'éducation nationale ci rentrée scolaire bi mu wax ni euh, école privée yi ñu ngi trouver ay solution ak parents d'élèves yi ci lañ gisee ni état bi narut a arbitrer problème boobu naru ko régler. day daw ay responsabilité. waaw te état moo war a régler problème bi. Mm-hmm. problème bi mooy lan euh, Covid 19 dafa ñëw. état tëj école yi élèves yi toog seen kër jàngale jàngiwuñu jàngalekat yi jàngalewuñu toog ba ñu delloowaat école yi au mois de juin ñu taxaw ni élèves yi ñetti weer yële passé kat foog ngeen fay ko waa jàngaloo ma yow école privée nga école privée maanaam entreprise privée nga dañ la boole ci njàngale parce que constitution moo ne foog ñu boole la ci njàngale mais sous le contrôle et l'autorité de l'État donc état mooy joxe ay mooy contrôler mooy joxe ay mooy joxe ay subvention yow nga nekk entreprise privée at mi ak at yi ko jiitu yëpp ngay liggéey di am bénéfice ñetti weeru Covid yi ñëw jàngalewoo amuloo xaalis état bi am na lu mu la jox jox na la 3 milliards bu bokkeewul ak subvention annuelle ba. 3 milliards sur jàppale la 2418 écoles privées. waaw jàppale la rek 2418 am na école xam ay 600000 million rek pas divisé déedéet. loolu hmm. <laughs> man je bien placé pour le savoir. Hmm. parce que brochure bi nga xam ne. y a les 2418 hmm. yi nga xam ñoom lañ séddale 3 milliards yi. détail bi ministère daf ko détaillé point par point am na ñu am comme li nga wax ay am na ñoo xam am nañ 7 millions 8 millions. ci taayu école bi la proportionnellement chiffre yëpp a ngi ci ak turu école yëpp ak seen i déclarant ak seen numéro téléphone lépp a ngi ci donc loolu mënuñ ko weddi duñ mënta weddi la 3 milliards yi jot nañ ci même buñ nee 3 milliards yi doyul bu fekkee école école yi état bi moo ko tëj mais xanaa bu ñuy laaj ndàmpaay ñoom bu ñu nee ñoom dañu perte te c'est la première fois kon ñu perte parce que euh, weer yi ci jiitu ak at yi ci jiitu dañ doon am ay recettes di ci fay seen i charge dese seen bénéfice donc entreprise privée la waaw bu Covid bi ñëwee Covid bi ñëpp la dal seen kaw ñoom mu dal seen kaw ñu toog ñetti weer jàngalewuñu ñu ne am nañ ay charges yoo xam ne fay ñu ko il faut ñu leeral ni charges yooyu enseignants yi dafa am ñaari catégorie dafa am enseignants yoo xam ne ay vacataires lañ leen di tudde ñoom ñoo ëpp maanaam bu ñu jàngalewul du ñu leen fay ak ay enseignants permanents yoo xam ne état bi dafa nañ leen fay 70 pour cent te ñooñu am na ci ñu bari ñoo xam ne kenn fayu la ñoom wax nañ ko mais même bu ñu leen fayee di pour cent charge yi bu dee euh, charge wu électricité wala ndox. wala nettoyage et tout ça charge fixe yooyu. Mhm. yooyu dafa néew. parce que école bi tëj na kenn du utiliser courant kenn du utiliser ndox kenn du utiliser euh, entretien et cetera charge yi néew na même bu fekkee dañu perte ñetti weer yooyu. lu tax ñu bokk ko teg ci ndoddu parents d'élèves yi nga xam ne te ju ñu école seen doom jàngiwul yow jàngaloo seen doom pare bëgg leen fay ko foo ko wekk fu doon ci jubadi. ah ñoom nee nañ ci crise bi xale ñi doon jàng en ligne. ñi doon jàng en ligne koy def ak ay. devoir non seulement non seulement ñu néew a néew lañu école yi ko ci def ñu néew a néew. parce que amu ci kenn ku mën a indi preuve ni doon na jàngale normal amu ci. ñenn ñi ay devoir lañu daan yónnee élève yi ay devoir en ligne yoo xam parents d'élèves yi ñoom ñoo koy surveiller seen i doom ñoo koy corriger peut-être wala ñu wut koo xam ne dañ koy fay muy corriger loolu mooy dëgg bi mais en aucun cas ñoom jàngale wuñu amuñu droit fayee ko loolu leer na te ministre bi xam na ko ministre bi waxoon na sax ni nañ leen parents yi nga xam ne jot nañ leen forcé ba ñu fay parce que dañ leen forcé ñu fay. waaw justement parce que gars yi ñu ne. dañ ñu fay parce que am na ñoo xam ne ñoo dem fay. jubadi gi non c'est-à-dire parents yi dañ leen forcer pour ñu fay parce que ca départ ba parents yi xamoon nañ ñu waruñoo fay ñetti weer yu njàngalul seen doom waruñu fay ñoom xam nañ ko ñi leen koy laaj xam nañ ko parce que pendant les trois mois gisoo ci benn école boo xam ne chaque mois mu def ay factures yónnee ko parents yi déedéet dañu toog ba trois mois yi jeex ba élèves yi waaj a reprendre ñuy téléphoner élèves yi élève par élève wala parent par élève par parent leen wax ñëw leen fay ñetti weer yi boo ngeen fayul ñu dàq seen i doom. loolu ñu envoyé le message. message. am na ay élèves yu ñu dàq. am na ñoo xam dañ leen ni leen duñ leen jox seeni i convocation examen am ñoo xam ne dañ leen ni duñ leen jox seen bulletin de note am ñoo xam dañ leen ni seen doom bu ngeen fayul arrière yi duñ leen réinscrire am na ci sax école bu mag boo xam ne bi préfet bi dafa wax de d'élèves yi ñëwoon di inscrire dem leen fay arrière yi après ngeen ñëw inscrire ñu dem fay arrière yi ñëw ñu ne leen place amul waaw loolu du jubati jubati mën na passé loolu donc jubati rek moo ci rek parce que bu ma jàngalu sa doom amuma droit fayeeku la bu ma la naree fayeeku jubati la kan moo war a régler loolu est-ce que parents yi war nañu dem tribunal comme niñ leen koy waxee état loolu la wax état nee na dem nañ tribunal régler régler problème loolu loolu aveu aveu d'impuissance la hmm. loolu dafay wane ni état bi deful rôlam parce que rôlam mooy arbitrer yow bu fekkee da nga nekk chef de famille yow yaay état yaay chef de famille ci sa njaboot am ci ñaar ñoo xam ne ñii dañu nekk ci litige yow yaa war a arbitrer yow yaa war a woo ñooñu ne leen kat ah jiwkat yow yaa newul ci dëgg lii bàyyi ko état bi moo waroon xool ni école privée yi laaj peyoor newuñu ci dëgg mu wax leen ko ne leen arrêté leen jël circulaire boo xam ne bii IA yi ak IEF yi ñoom ñoo koy appliqué ñooy surveiller application su boobaa amul benn école privée bu ñemee laaj quoi que ce soit mais parent yi dañ leen forcé ba ñu fay ñu bare fay ñi fay dañu leen war a rembourser ministre bi nee na woon sax dañ leen war a defal ay avoir maanaam ñu am fa crédit boo xam ne bii bu ñu waratee fay ci loolu la ñuy jël fay donc xam nañ ni autorités yi xam nañ ni école privée yi amuñu duwaa fayee ko élèves yi waaw lu tax ñuy seetaan ba léegi may wax naan parent yi dem leen tribunal tribunal mënul régler boobu problème parce que tribunal cas par cas la koy régler maanaam tribunal il faut école bi parents d'élèves école bi dem saisir ko ñii saisir fële ñii saisir ki ainsi de suite fii ak ay weer affaire yi du régler te du régler globalement or il aurait suffi que état bi jël benn circulaire ministre bi def circulaire ni école privée yi amu leen droit fayeeku ñetti weer yi ñi ci ñi ci jot a fay nañ leen defal avoir wala ñu rembourser leen loolu la état waroon def te defu ko ñun loolu la ñuy demander état mu def ko moo tax ñuy def manifestation bi ñuy def pour naqarlu li nga xam ne moom la école privée yi di def te jaaduwul te jubul ñu wax leen ñu arrêté wax état bi mu jël question boobu régler ko globalement loolu moo tax ñuy def manifestation li ñuy def du marche. Hmm. Euh, grand rassemblement lañ dañ koy def. Euh, rond point JVC ñëpp danañ ci bokk te ñu ngi xaar élèves yi ak parents d'élèves yi ñu jiitu ci place ba parce que ñoom la ñuy xeexal. waaw surtout ça nit nag bu lay xeexal. <laughs> Ah. daf la ciy fekk. parce que le problème de fond dafa mel ni école privée yi ñoom ñoo leen gën a organisé wu. ñun moo tax ñu mën a dégager benn position commune. mais parents d'élèves yi dafa mel ni dañoo dispersé wu. alors association de parents d'élèves yi am na ci ñoo xam pare nañu pour ñëw am na ay syndicats d'enseignants yoo xam ne gëm nañ te wax nañ aussi ne. parents d'élèves yi ñoo fay euh, am nañu ay société civile am nañ ay hommes politiques yu ràññeeku yoo xam ni ak ay membres de la société civile ak ay personalité yoo xam danañ ñëw ci manifestation bi incha allah ñu ngi woote mais daal bu ñu sañoon ñu ñu fay dafay jiitu mooy doon parents d'élèves bi ak seen seeni doom parce que xeex bi seen xeex la invité nañ dañuy invité ñëpp pouvoir comme opposition homme politique yëpp la ñuy invité parce que yëf yi ñëpp la concerné dangay gis ay magistrats yu lay wax ni ñoom ils ont été victimes de sax nga gis ay ay ay autorités yu lay wax ni ils ont été victimes de ça fan lañ koy jooyee mais état bi moom moo war a régler problème bi globalement man bu ma nekkee borom kër sama waa kër am ci litige dama leen di woo taaj leen ki newu ci dëgg mën na yow kat jiw yaa newu ci parce que daa mel ni école privée yi dafa am dañoo forme benn lobbying bu puissant boo xam ni non dañoo am doole waaw am doole yoo xam ni état bi dafa mel ni état dafa leen hésité avant dafa mel ni état bi ragal sax mais wax li ci ne hmm. parce que nag école privée yi ñooy ñan les deux mille cinq cent environ y en a environ quatre cent qui ont une autorisation loolu aussi problème la y en a environ école yu fii ay école une autorisation il peut-être 700 ou 800 yoo xam ni euh, def nañ déclaration ba euh, ñu bàyyi leen ñuy kii parce que euh, defaguñu enquête bi pour dem nemmeeku leen def contrôle et cetera mais ñi ci des c'est des clandestins mm-hmm. et malgré que c'est des clandestins jox nañ leen ci subvention bi parce que subvention bi 2418 écoles la ñu recensé donc état bi déjà loolu problème la deuxième am na ci ñoo xam ni sax bu examen jotee seeni élèves dañ koy yàqale ci ay écoles yoo xam ni am nañ autorisation nga gis ko xam day jël kër boo xam ni c'est pas aménagé pour être une école xam ne du am sax ndox bu doy pour élèves yi de suite parents yi dañu jaaxle parce que école yu doyul et c'est le moment de poser le problème de la restauration de l'école publique ça c'est le combat de la COSYDEP COSYDEP dinañ bokk ci manifestation bi parce que wax nañ dëgg ko école publique ça devait être la règle mm-hmm. et l'école privée l'exception mais bu ñu demee ba école privée yi ëpp école publique yi nit ñi yaakaar ni seen doom ñu yóbbu ko école privée moo gën ñu yóbbu ko école publique yaa échec mm-hmm. te loolu dañ ko war a rectifier te état bi daf ko war a rectifier donc combat yi bare na solution daal solution daal état rek ko yor. état moo yor yéen parents d'élèves école yi mënu leen toog waxtaan bu trouver solution. mais parents d'élèves yi dañu bare parce que que ça soit à Dakar ou dans les régions et tout et am na benn pétition bu ñu def en ligne pour nit ñi signer ko état mission de service public bi nga xam ne mooy éducation moom la incombé boo demee dans la constitution mission de service public comme ni mu yore santé yore logement yore éducation. yore sécurité et cetera noonu lay euh, yore éducation nationale maintenant constitution bi dafa wax les écoles privées sont associées à cette mission sous le contrôle et l'autorité de l'État li ñu xaar ci état mooy mu def autorité parce que lii fi xew Sénégal ñun gëmuñu ni même dans la sous-région réew bu fa amoon état bi dana toog di ko seetaan lu tax état du Sénégal toog di seetaan loolu ñun loolu la ñuy demandé parce que le privé ils sont organisés comme ni nga ko waxee ils sont très organisés le privé catholique dont nous saluons les résultats parce que privé catholique bu wax enseignement privé fii Sénégal privé catholique moo ci ëpp am na privé laïque am na privé musulman mais privé catholique ñoo ci ëpp ils sont organisés te ils font de bons résultats il faut de bons résultats il faut qu'on le reconnaisse ils font du bon résultat on les salue pour ça mais on on on on les dénonce pour li ñuy laajte ñu fay leen loo xam ne kenn amelu leen ko seeti cardinal bi danañ ko seeti incha allah comme nañuy seeti yeneen chef religieux yi mhm. pour mu wax ak nit ñi parce que yow doo doo jàngale rek moral te yow pratiquer yow moral mhm. naka ngay laajee nit pour mu fay la ni ko forcer pour mu fay la loo xam ne wóor na la ni amelu la ko amul fenn foo ko mën a wékk du ci contrat du ci dara mhm. parce que ñoom dañuy wax contrat mais contrat contrat yow bu fekkee ni da nga ni man maag yow dañu séq contrat man ma am ay obligation yow nga am ay obligation sa obligation mooy nga jàngal ma man sama obligation mooy ma fay la boo ma jàngalul yoon dafa wax ni am naa droit bañ a fay loolu la ñuy wax l' exception d' inexécution article 104 COCC moom moo wax ne bu ñu séqee contrat bilatéral yow sa obligation boo ko deful man am naa droit ni duma def sama obligation tant que defoo sa bos donc loolu la boo ma jàngalee ma fay ma boo ma jàngalul lu tax nga may fayeeku foo ko wékk chantage jaay doole menace daq ay élèves dafa war a dàq Sénégal ak organisation bu fi mënti am dès l'instant c'est des entreprises privées bu doon entreprise publique sax amuñu droit waxantuma la ak entreprise privée yoo xam ni dañu organiser wu pour am ay bénéfices waaw donc loolu na loolu dafa jaadu. moment bi ngeen di mën a combat bi cours yi ñu ngi commencé na yàgg na élèves yaa ngi jàng ci classe yi. waaw am na ñu toog si kër ga. am na parents d'élèves yoo xam ne voilà est nekk di jàng amuñu longueur d'avance ñi toog si kër bien sûr mm-hmm. te loolu état a corriger am na parents d'élèves yoo xam dañ ñëw pour réinscrire seen doom li leen laaj mënuñu ko fay dañu doon jooy ci seen i kanami doom loolu jaadu na ci réew moo xam ni éducation bi ça doit être gratuit sa doit être gratuit ay parents d'élèves yu jooy parce que dañ ci dugal caay-caay yu bees caay-caay yu bees yi mooy dañ lay signaloo engagement pour at mi yëpp ne la tu t'engages à tout la l'année maanaam bu ëllëgee bu ñu tëjaatee école yi pour Covid pour 3 mois wala pour 4 mois engagé wu nga pour fay bu boobaa ñun de toute façon. déjà tiré nañu leçon déjà waaw loolu clause abusive la danañ ko xeex en son temps pour le moment nañu inscrire xale yi ñu jàngi ñaareel bi mooy. Euh, dañ lay exiger léegi nga fay trois mois d'avance waaw ban parent d'élève moo mën a inscrire sa doom fay frais d'inscription jëndal sa doom ay fourniture jëndal sa doom ay yére parce que foog ñu jëndal leen yére ba pare ñu ne la foog nga fay trois mois d'avance foo koy jële am na ñu ko mën mais pare wu ñu looloo tax nga gis ay parents d'élèves yu taxaw ñu laaj leen mënuñu inscrire seen doom ñu toog di jooy foofu loolu rafet na loolu jaadu na parce que loolu loolu loolu loolu diine maye na ko. est-ce que loi maye na ko mayewu ko. c'est humiliant. donc loolu loolu la ñu bëgg mu dakk hmm. loolu école privée yenn yi di def. kon daal tribunal daal du solution am na quelques école privées yoo xam ne reconnaître nañu que ne parents bi bi waruñu fay. mois de mars la ñuy laaj ñoom parce que mois de mars ça a été entamé. Hmm. jàng nañ ci 15 jours ñoom loolu la ñuy laaj te ñooñu ñoo nekk ci dëgg ñooñu ñoo wane njub. mais ñuy ñi di mooy ñuy laaj ci ñetti weer yoo xam ne jàngale wuloo yow jàngale wuloo parce que te da ngay jàngale ñu da ñu lay fay jàngale wuloo nga bëgg ni par force ñu fay la foo ko wekk lu tax état bi di ko seetaan. tribunal daal du solution nga gis. tribunal du solution parce que tribunal cas par cas lay réglé. tribunal école Dior. Dior ñoom déjà ñoom ñu ngi tribunal déjà. ñoom xeex nañ ñu ngi tribunal mais ça va prendre du temps ça peut prendre du temps. Mhm. bon et puis mais ay frais la. parce que dañu jël ay avocat di fay loolu jaaduwul état moo war a jóg taxaw ni siffler la fin de la récréation wax ni lii la arrêté ñun loolu la ñu demandé état na jóg ni payeeku bii xam ne jaaduwul teguñu ko ci loi teguñu ko ci droit nañ ko arrêté état bu responsable loolu lay def loolu la ñuy demandé ministres yi ñu def ko bu fekkee bëgg nañ assumer seeni responsabilité bu fekkee ni defuñu ko ñu ngi wax chef d'état mu def ko moom mooy kilifa ñëpp moom moo war a taxaw ni lii du fi am parce que du dëgg lii dul dëgg kenn du ko nangu ñu ngi ñaan chef religieux yi aussi ñu yëkkati seen kàddu mënuñ ñëw ci rassemblement bi mais nañ ci wax problème mu Sénégal la problème mu sénégalais yi la père de famille yi ñoom ñooy suñu njiit ci diine lii dañ ci war a wax chef religieux bu ci nekk war na yëkkati baatam ñu dégg ko askan ñu dégg nii wax na ci ni lii jubul jaaduwul. loolu lañ leen di ñaan. Mhm. ñoom ñooy suñuy kilifa loolu lañ leen di ñaan parce que seen wax dafa jot. ak boor bu ñu mën a bokk. ak boor bu ñu mën a mhm. bokk. Mhm. nañu wax. pour lii dakk pour lii arrêter. Mm-hmm. voilà euh, ñu jeexalee rek ak euh, actualité bi di centre de redressement yi euh, ñu mettre ci en cause nag ay taalibe Serigne Modou Kara fi mu nekk enquête bi ubbi nañu ko mu nekk coow ci presse beeg ci réew mi en tant que avocat di homme de loi et homme de droit et tout ak itam ku jiitee association consumériste naka nga gisee actualité boobu. waaw Serigne Modou Kara mi nga tudd. kilifa diina la bu ràññeeku boo xam ne bii. Euh, man euh, am naa cofeel trop ci moom mhm. parce que euh, il fut un temps ay manifestation yu mu daan def sax daan na ma invité mhm. mais bi ñu déggee affaire au centre de redressement bu fekkee tour bi noonu la mhm. parce que am na ñoo xam dañ ni daara la pour tarbiyewu ay nit mais bu ñu nee centre de redressement pour ñu ñi jàng droit dañuy wax ni centre de redressement ci réew état dong moo ko mën a def moo ko mën a instituer moo ko mën a créer di ko doxal ci ay charte ci ay règles yoo xam ni dafay respecter les droits de l'homme dafay respecter les droits humains loolu rôlu état la cëru état la bu ñu ne centre de redressement tout de suite on pense à l'état état rek moo mën a créer centre de redressement moo xam moom mu def ko wala mu dënkaane ko bu ko neexee aussi mën nañ def comme on fait dans le privé maintenant mën na peut-être passer des conventions avec des spécialistes yoo xam ni ils sont sur ça et c'est ce sera sous la surveillance et l'autorité de l'État mm donc loolu moom la ñu kii comme il y des enquêtes en cours mm-hmm. moi en tant qu'avocat mënuma et même en tant que citoyen mënuma mm-hmm. prononcer wu ma joxe un avis motivé tant que conclusion y contrat yi euh, euh, enquêtes yi génnul bu génnee ba ñu xam li xew dëggantaan bu fekkee am na ay ay firnde ay preuve ñu gis ko mënaguñ ci wax donc ñu ci mën a wax li ñu mën a wax daal mooy centre de redressement yëfu état la. léegi rapidement coronavirus bi cas yi commencé di bëriwaat démb 66 cas tey 49. Euh, président en conseil des ministres mu insisté waat sur port du masque ak mesures barrières yi euh, est-ce que situation bi nu demee nii euh, mu ngi lay commencé tiital. Euh, waa tiit bi moom yàgg na. Mm-hmm. surtout que bon euh, man troisième âge la foog ma moytu. <laughs> quatrième âge sax laay wax alors. Euh, nit ñi dañu inconscient mm-hmm. sénégalais dafa mel ni mm-hmm. ñoom dunduñu li nekk ci àddina bi mm-hmm. dafa mel ni yëgaluñ ko seen yaram te affaire bi mi ngi Sénégal ñëpp xam nañ ko ni mu nekk ci yeneen réew yi noonu la nekk Sénégal xëy na ñaanu maam yi ak euh, kii ak peut-être suñu lekk yeeg yooyu xëy na moo ñu moo tax ñu ñu mais xam ngeen ni coronavirus ni muy dalee ci nit ñi xaajul ci ñun donc sénégalais yi dañu war a redoubler d'efforts mais dafa am ñoo xam ne wax mënul ci ñoom dara foog nga caw wax mënul ci ñoom dara parce que inconscience la ñoom dañuy bàkku sax ci mbedd mi bañ a sol masque am na sax ñu ko gëmul ba léegi di defante ay biis di defante ay kii di mais dafa mel ni feebar bi naaw fi mhm. te bu duloon coronavirus sax mais masque bi njàngat la masque bi dafa baax parce que am na ñoo am ay tuberculose et tout ça mhm. mais coronavirus bi bu fekkee état bi euh, président def na appel mhm. loolu doyul nit ñi respecté wuñu li ñuy wax nañu jël crasse crasse bi nag du pour jël ay kii di dóore mais crasse ci portefeuille crasse ci portefeuille bu fekkee am na amende yu forte parce que Senghor daan na ko wax Senghor daf doon wax ni moom dafay yor livre à la main gauche yore bâton à la main droite parce que am na ñoo xam boo waxee ñu dégg jëfe am na ñoo xam ni boo waxee duñ dégg foog nga crasse ñu soog a dégg li ngay wax mm-hmm. mais nañu génne crasse parce que jot na inconscience bi am nii amul ay sanctions yu sévères waxuma ay amende six mille francs ay cinq mille francs bu ñu commencé woon vingt cinq mille jëm cinquante mille ba ku ñu jàpp nga fay par force wala say mbokk dajale fay ñu soog laa bàyyi léegi tey affaire bi arrêté. Hmm. boo génnee donc loolu la ñuy wax boo génnee di nga jënd masque bu cent francs. ah oui oui na état bi <laughs> doxal autorité loolu rek. merci beaucoup jërëjëf. ma soxna kan avocat à la cour président SOS euh, consommateur nga ñëwoon fi surtout pour waxtaanee sa rassemblement bi ngeen war a amal euh, samedi euh, samedi ci suba lay nekk. samedi ci suba 10h mm. rond point JVC. Mm. ci deux voies Liberté ci yi. voilà ñu ngi wax sénégalais yëpp. Mm.